Fidel Info seen chaîne bi ngeen tàmmu. dañu ñëwoon Kër Moussa ñu ñëw jël ci trophée pour finale dimanche bi la zone 5A ñu andu ak membre yi ñëwoon fii pour recevoir trophée yi di ko sant tamit di ko sant bu baax ci geste yi muy def nii parce que bu ko neexoon du ko def il a fait il a refait defoon na ko defaat na ko kon nañu koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla bu déwénee mu mën lu ëpp lu mu mën ren bon lii nag bon c'est une fierté pour nous ñëw fii mu jàppale ñu pour suñu préparation finale bi ñoo santé koy di mouvement MS4 bi yëpp di sant tout le département de Kër Massar jërëjëf merci beaucoup tout d'abord ma ngi nuyu Sénégal di nuyu bokk internet yëpp euh, bon di remercier aussi euh, zone 5A bi nga xamante ñom ñoy finalu mais di leen féliciter di leen encourager donc li defuñu ko c'est parce que dañu nekk ay jambour defuñu ko c'est parce que dëkkuñu fi mais dañ cey bokk ndax mouvement nawetaan ñun ñoko initier initié ñun ñoo nekk tey par exemple les vrais acteurs mais aussi ñun ñoo si war a jàpp defaluñ ko ay jàmbur mais suñu bopp lañ koy defaral ndax suñu ay jeunesse ñoom ñoo fi nekk ñoom ñooy liggéey ci lii plus particulièrement ñi nga xamante ne ñoom ñoo euh, ŋànk organisation bi tamit nekk ay fierté Kër Massar donc ñu yaakaar ni xëy na euh, événement bi li ma ci lancé moom mooy euh, ñu def ko dans le cadre fair play et que tay par exemple le maire gagne ñu xamné tamit Kër Massar moy gagné. Mm-hmm. joué wuñu ak kenn mais suñu biir ñu ñooy jouer mm-hmm. tournoi la woon te dem nañ ba yegg ci ciapandaw gi donc li nga xam te ne ci am solo il faut mu am un vainqueur et un vaincu mm-hmm. donc ki gagné mérité la victoire Qui gagne, qui ki gagné aussi tamit il il n'a pas démérité mais c'est juste que euh, football mo mel non sport moo mel noonu de façon entière maintenant di am solo ba am solo moom mooy ñu xam ne tamit coupe bi coupe Kër Massar la ay doomu Kër Massar ñoo koy joué donc ñu war a mën a ànd bokk ndey bokk baay fet bi gën a neex loolu lañ ci ñaanal ñëpp jërë ngeen jëf.